baay gis nga de yu ma dem war a gérer xam nga yaa ma gën a xam moo a gain baay gis nga de business yi ñoo bëri. non naa faar mais yàlla baax na ba beneen yoon rek. bu soo ma rek acca ma ñëw waaw. Ah, def lu muy def ah ah. ah ah xam nga business yi tamit naa ok baax na kon. père. yow booy yow booy yow jox nga mën a fen yow booy yow yow nga ma fii tey tey jii eh, dama amee malaise. dama yow yow fii ngay des yow fii laa lay rey. Eh. yow booy yow déglu déglu déglu rek. père man tiit bu ma tiit si biir bi loolu mosuma ko tiit sama. yow booy maa la gën a tiit si biir bi. non père yow gerte kon yow fii nga dëkk. fii laa dëkk booy maa la gën yow ima yow booy booy booy waa kër gi bu ñu xamoon ne man da maa fekk may naan lu ñu may wax. ba ba booy dama lay mbëkk de dama lay mbëkk père xam nga léegi jamono yi da ngay kottu nit saa mu ci yow yow sama loxo ngay dee. dama ni waa kër bu nga xamante ne da fekk may naan yow loo may wax. man tamit soo dama lay dama minutes lay wax nga. ma da nga ah ah. dama la xojal li xojal mu wàcce. waaw mhm. xam nga ni dafa eh, xam nga ni sàcc ah xam naa ni sàcc nga man xam naa yow tamit doo woor baa bu ñàkk fayda nga <laughs> des fois damay sàcc léegi bu ma lëfal bu ma la lëfal ok mission accompli jeex na mais booy hmm. loolu ma yaa moom xanaa yaa koy cukuri eh, eh, xoolal loolu afta la nañ ci waxtaan booy taxawal booy Mariama muy dalaa nopp ak jeune mu lay xoole père loolu nañ ci waxtaan si weeru koor la nekk na père yow tamit na yow booy yow yaa mën a fen yow ca yow nga te weeru koor lañ ne ngay ñëw fii di xanaa gisuma la bi ngay. père xanaa loolu dañ koo tere. léegi fóon wi nga ko fóon fii fu ñu feere. astafirullah ay père booy iril xale bi. père weeru koor leen nekk. iril xale bi nga nga. père weeru koor leen nekk père xoolal man wax yu bëri man heure mënu ma ko ay irit yaay lii ñun si weeru koor leen nekk. billaahi weeru koor bu ñu dogee ñoom moom suñu bopp iril xale bi. baax na ko. naaj iri ko. naaj. kooku iri suñu bopp. iril boy bi ngay wax su doon mën ba iril dina ko seete chose C'est da ngay yew teg sa fi commencé bax ah way it sama dara ji war naa woo garas ñu mu changer ma ko Fallou ak saa mu ma ko joxoon de mais <laughs> eh, papa bi dee ci dee ci yëngu ak mën a jàng booy woo bu la téewulee ak bale kay moom garas ñu ak saa ñii rey ak saa ñëpp xam nañ ko de ma ne ko ñii rey ak saa ñëpp de kum ci jàpp lëfal la lëfal la lëfal loo xam ne

nga def ay ci jàmm Mariam na nga ragal koor nag Mariam yow sa yére bi froissé na de xanaa sa jabar du la passé sa yére ci la mënu tilimé depuis nga ñëw photo Mariam yére bi de ñu ci nak gënoo leen te gënu ñu leen hein ma la li

ndab yaa ngi ca ginnaaw raxasuñu ko nga toog am li ngay wax dugal nga bale kër gi. toogal nii nga dem kër gi moom da koy bale forcé. doo fi nekk naan da woor naan du ma def dara. kon xam nga damaa woor. kon man wooruma. yow wooroo man wooruma. Mariama su may wax damay tontu dama lay door ba dox sa kaw di fekk ceebu jën benn mbay Mariama. Mariama du ma sa morom. noppil yaa may dégg e defal ni yow. Eh! Eh, eh bàyyi ma yow. yow eh. kër gi jugal nga bale kër gi laa la te nga. waxuma la waxuma yow dégg nga samay 18 yow. Mariama yaangi ngi nar Yo ci yo, soow ngay woo lebu ci lak jeen ndaw sëlale li yow ya rew eh ma tay sa ndig li nga fas ni ko togg mana ma Yo bo tay ah bo wax lo suma bu wala bu ma wax lo eh, yow jugal nga bari mariam eh yow yow de jéggi nga eh mariam mun nga ko wala mën nga toog toogal toogal dama lay nopp de toogal ah yéen ñaar yëpp yéen ma bëgg a nopp li yow lan mo tax nga yor xeru xol xol xol xol iblis. ma tay mees peres nga. ma tay sonal nga ñu. ma tay bon nga. ma tay suma man Idrissa la jël bolé ko ci leket nan yow bo ma ñak jëm. ma tay yow gàcce gu jëm ñay palmanu la. bu ma laal. non non man soxlo ma laal da yow yow. bu ma laal yow eh. gis yo yow xawma fi ngay dem de kër gi mom dang koy balé tay man Mariama mi nakari nam te ndab yi koy raxas nak ndab bi la fi xaar gis yow xam nga la la bëgg. eh danga may déglu yow gis yow xam nga eh xam nga lan laa bëgg gis na nga génn ci man gis na Idrissa nekk fi kenn sa kaw def waaw may ma may ma gis nga yow eh eh la la maget kaay maget kaay ñu defante ba mu saf sa ndigg loolu nga yeew ni koy togg mbana yow nag Mariama yow bo ma ma tok ya, ya, nga tok dama lay ñuss loolu moom ma la ko wax. yow fooy dem i la taxawal léew kër gi ngeen jàpp di mbele mbele mbele mbele mbele mbele xuloog suba xuloog ngoon bàyyi woo leen xëdd bàyyi woo dara lan la lu xew mënu la la yaa yaa kan la tamit yow yow kii ni ma gër chaque jour du may sonal fi di ma saaga maa ngi di di ko jàppale suba ngoon bëccëg guddi yëpp maa ngi liggéey xanaa man du ma nooy man du ma nit mel ni man maa sëy si biir kër gi loolu mënu ko. wala kañ ñoom ci biir ñu wax. ñu waxtaan déedéet déedéet garaawul sa bopp yow yow fooy dem nii léegi. damay dem. di wóor na ma paa bi la paa bi nga xam ne bu mu wàccee ci kër gi ca xuloo xuloo sur xuloo xuloo sur xuloo da nelaw saa ngi dégg xuloo ci kër gi non.